initié tey lu am solo mooy euh, dem si ñi nga xamante ni ay euh, couche vulnérable la ñoo xam ni sax mën naa ni dañ leen di faral di fàtte mooy handicapé yi parce que tey bi ñuy demee dem nañ si handicapé moteur yi ñi nga xamante ni am na ay problème pour dox aussi dem nañ si sourds-muets yi euh, mais également dem nañ si ñi nga xamante ni duñu gis ngir que dem xool recueillir seen i préoccupations xool ñoom lan mooy seen i jafé jafe ndaxte dañu nek euh, période bu xaw doy waar période de pandémie donc tay euh, ñom ñu nek ay nit ñoo xamanteni tay pandémie bi dafa xawa jouer ci lu bari ci seen activité yoo xamanteni ni moom lañ doon am segam ñoom am na lu manqué ci ñom donc su pandémie bi bi bi ñëwee aussi day gëna tax c'est des activités wàññeeku moo tax tey raison pour laquelle ñu rek dinañ jog euh, participer ce élan de solidarité bi nga xamante état bi nous la teg ku xam le mouvement Siggi Jotna xam ko ni action sociale de jiital te aussi dafa faire euh, euh, l'homme au devant de ses préoccupations moo tax ñu les handicapés ces société bi la et citoyens qui sont d'égale dignité C'est la raison pour laquelle nous ñu ne dem seeti leen euh, amaan na état c'est le rôle de l'état parce que état lancé na ay aides alimentaires yi boo xamante ni mu ngi koy jox euh, les populations qui en ont besoin mais nag dañu xam xam ni kat ñoom peut-être ba léegi excès gul si ñoom raison pour laquelle moo tax ñu ñu ne dinañ jóg jël suñu doole pour dem taxawu leen ndaxte ñoom kat mënuñu dem mënuñu dikk wax nañ leen ñu toog pour respecter les mesures barrières mais soo waxee aussi koo xamante ne handicapé la mu toog pour respecter les les les mesures barrières te amoo ay jumtuwaay yoo xam ni moom moom nga ko dox je pense que pour que ni loolu dina xaw a am ay jafe-jafe. moo tax tey ñu dem yóbbu leen ceeb yóbbu leen dëwlin aussi yóbbu leen ay mesures de prévention ay gel ay masque ay ay détergent

former ay association xam ne ñoom ñoom ñooy def auto auto emploi ak auto formation donc ak auto éducation ñoom ñooy éduquer seen bopp di former seen bopp donc je pense que tey loolu c'est le rôle de l'État donc ñoom manqué nañ ay jumtuwaay manqué nañ ay dëkkuwaay manqué nañ aussi ay centre boo xamante ni fa la ñuy dajaloo euh, ñu si bëri am na ay terrain yu ñu leen octroyé mais ba léegi amaguñu ay financement boo xam ne moom mooy tax ñu mën ko tabax pour ñu mën fa nekk donc je pense que que loolu j'appelle et j'incite à l'État vraiment lu taxawu les handicapés yi nga xamante ni ñoo nekk ci réew mi yëpp nekk Sénégal parce que ñoom it ci réew mi la ñu bokk ay citoyen lañ donc tey lu nit normal am ñoom aussi war nañ ko mën a am parce que it euh, vraiment tey bi ma demee j'ai été très sensible par rapport à préoccupation moo tax aussi ñun jël nañ ay engagement de si lu ñu mën dañ leen si accompagner ba seen projet yi ñu am ñu mën ko réaliser